Euh, le gouvernement va donc travailler dans, en direction donc des prochains mois. Le premier tête à tête s'est déroulé dans une ambiance assez conviviale. Les autres deux hommes se connaissent très très bien. La poignée de main entre le président Macky Sall et Amadou Ba, l'actuel, pour euh, identifier, bien sûr, comme on l'a dit, euh, les, les urgences adjurants, la vision du président, euh, naturellement de, euh, de cette prérogative. Il définit la politique de la nation et puis délègue, réaménage ses pouvoirs Euh, donc, on reste toujours dans le schéma d'un régime présidentiel avec le chef de l'État, le président de la République, Macky euh, qui déjà hier, euh, dans son adresse à la nation, a fixé le cap vers les prochaines, missions qui seront assignées au nouveau gouvernement. Les urgences, les urgences, c'est encore une fois la cherté du coût de la vie, c'est bien évidemment sur tous ces aspects qu'on va donc Euh, donc, euh, on va donc y revenir. Tout de suite, priorité au direct, euh, l'arrivée de monsieur le Premier ministre en compagnie du ministre secrétaire général de la présidence de la République, monsieur Omar Sambaba. C'est à vous, Mesdames et messieurs, faisant suite à son message à la nation d'hier, et dans la dynamique de consolidation du fonctionnement optimal des institutions, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a décidé par décret numéro 2022 1773 du 17 septembre 2022 de mettre fin aux fonctions des ministres et secrétaires d'État membres gouvernement. remercie et félicite le gouvernement sortant pour son engagement le travail de qualité accompli durant 22 mois et demi, malgré une situation sanitaire exceptionnelle et une conjoncture économique et sociale particulièrement difficile. En même temps, le président de la République a nommé par décret numéro 2022 1774

des urgences économiques, sanitaires, sociales et environnementales sans précédent. Dès lors, le Premier ministre Amadou Ba est chargé de proposer dans les prochaines heures à l'approbation du Selon le chef de l'État, le gouvernement attendu devra finaliser les projets phares du plan Sénégal émergent, le PSE. Ce gouvernement doit également asseoir dans l'écoute, la proximité, l'humilité, l'efficacité et l'équité la prise en charge prioritaire des préoccupations et aspirations légitimes de l'ensemble des forces vives de la nation, notamment les jeunes et les femmes. Enfin, le gouvernement de référence qui va entrer en fonction reste un gouvernement de défi et de veille. Défi et veille face d'une part à la montée en puissance de l'économie pétrolière et gazière au Sénégal et d'autre part face à la transformation inédite du contexte géopolitique mondial marqué par les impératifs sécuritaires, le caractère vital de la préservation de l'autorité de l'État et la maîtrise durable des exigences d'une vie toujours meilleure pour les populations. Monsieur le Premier ministre Amadou nous vous adressons nos chaleureuses félicitations et nous vous présentons nos meilleurs voeux de réussite. À présent, je vous passe la parole. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie, Monsieur le Secrétaire général. le président de la République, euh, M. Macky ce matin a décidé de me nommer Premier ministre pour l'aider dans la mise en œuvre de sa vision déclinée à travers le plan Sénégal émergent, la coordination à ses côtés, sous son autorité, de l'action du gouvernement. Dans son message à la nation, je voudrais donc, avant de revenir sur les priorités, rendre grâce à Dieu et prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Remercier Monsieur le Président de la République pour cette confiance renouvelée. En effet, depuis plusieurs années. D'abord en tant que directeur général des impôts, puis ministre de l'économie et des finances, ministre de l'économie, des finances et du plan, ministre des Affaires étrangères et des Sénégal de l'extérieur. Le président de la République a toujours eu confiance en moi et on a cessé de me signifier, de magnifier cette confiance. Je voudrais l'en remercier très sincèrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, et prier le bon Dieu qu'il m'aide, avec le gouvernement qu'il mettra en sa vision, avec succès. Les priorités majeures que le président à travers l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages, il en a longuement parlé hier, de la stabilité des prix, de sécurité, de logement, d'assainissement, d'éducation, de formation professionnelle, d'insertion, d'entrepreneuriat et d'emploi. Tout ceci dans un état de droit. Vous comprendrez qu'il s'agit principalement des axes 2 et du plan Sénégal émergent, la vision du président qui sera mise en œuvre. kon mbokk yi maa ngi remercier secrétaire général bi balaa loolu président de la république Macky Sall ci suba si bëgg ma ñëw ci wetam en tant que premier ministre pour li nga xam ne yéene na ko Sénégal li nga xam ne mi ngi koy def Sénégal ma bokk ci ñi ko ci jàppale may sant yàlla bu baax a baax a baax di julli ci yonent di sant président de la République ndax confiance bi yàgg na nekk naa directeur général des impôts et des domaines nekk naa ministre de l'économie et des finances nekk naa ministre de l'économie des finances et du plan nekk naa ministre des affaires étrangères ma ko ciy sant di ko gërëm di ñaan yàlla lii nga xam ne yaakaar na ko ci ñun ñu nag ñi nga xam ne ñu ñooy ànd ci gouvernement bi ñu mën cee def lu ëpp njortam loo xamante ni dina jariñ réew mi yëpp ndax loolu rek la soxla la nga xam ni wax nañ ko ko mooy am nañu yéene liggéeyal ko liggéeyal réew mi ñuy ñaan yàlla ci xalaatam mu rafet te ñu xam ko mën koo def la nga xam ni soxal na ko nag mooy lu jàmp mooy lépp loo xam ni dafay dem ci askan bi ndax àdduna bi xam ngeen ni jafe na lool nii ñu toll lu jëm ci wàllu njëg yi président bëgg na gouvernement bi taxaw ci nu mu gën a gaawee li jëm ci wàllu kaaraange li jëm ci wàllu dëkkuwaay yi li jëm ci wàllu assainissement ndax nawet bii nga xam ne ñu ngi ci am na yu bari yoo xam ni gis nañ ci réew mi bokk na ci li nga xam ne gouvernement bi war na cee taxaw ci saasa li jëm ci wàllu njàng mi ci wàllu formation professionnelle mooy xale yi xam ne dañ leen war a jàngal ndax ñu am ay métier fexit bu ñu amee métier mën a liggéey li jëm ci wàllu entrepreneuriat ak ci wàllu liggéey sant na ko premier ministre bi moo gouvernement bi nga xam ni am na yéene teg ko te du yàgg mais loolu yëpp daa bëgg ñu def ko ci li ñuy woowee état de droit état boo xamante ni àq yi ak yelleef yi dañ koy sàmm bu baax a baax a baax a baax loolu mooy li nga xam ne bëggoon naa ko wax ma leen di sant yéen ñëpp ci seen teewaay di leen gërëm incha allah du yàgg balaa ngoon gi aux environs de dix huit heures jëm dix neuf allah président ñu siiwal ña nga xam ni war nañoo bokk ci gouvernement bi ma leen di sant. mu doonoon kaddu yu njëkk ci ki nga xam ni moom la njiitu réew mi tàbb mu doon donc euh, premier ministre de la République du Sénégal.